ami et fidèle internet nuyu nañ leen bu baax a baax di kontaan saa su nekk si jàkkaarloo bi comme ni ñu leen koy defalee saa su nekk di dalal ay ndaanaan di waxtaan ak ñoom tey nag seen spécial Saint-Valentin dama see dalal koo xamante ni si Sénégal kenn dootu ko laajteeti muy ki nga xamante ni moom moo di suñu maman Mbodia Mbaye moom nag mu nekk koo xamante ni nee naa ko tout le temps yow yaay xaritu góor ñi di xaritu jigéen ñi ba tax na tey bis yu mel ni nag su amee dañuy koy taamu eh, ngir waxtaanam boo xamante ni am na solo waaye tamit jàngalam jàngalee jàngaleem boo xamante ni si Sénégal yi yëpp ñoo koy bàyyi xel taamu jo nuyu naa la bàyyi la nga ñëw mbokk internet yi fay naa la sama taabu jigéen bi maa ngi lay ziar baax yaa fi ñëwaat mhm, maa fi ñëwaat kon ma da ngaa dawoon de <laughs> waaw <laughs> bu baax uh-huh. seen site bi nu mu tuddati sax di nuyu nag nag sama technicien bu mag bi muy Omar uh-huh. ah tarkaal la xale boobu nga xam ne tarkaal la lu mu lu mu lu mu lu mu montageul lu mu tiitarewul baaxul ah, tarkaal la waaw waaw waaw waaw loolu nag eh, dama koy jàllale waare nag ndax ñu ngi liggéey ma ak moom te gis naa ne ba ma tegee loxo ba tey sama si tarkaala la mm-hmm. rusuma ko kon maa ngi koy ñaanal yàlla jàmm mm-hmm. ak sutura xéwal yàlla bàyyi maag moom nag bu baax mm-hmm. ñu gën a liggéey gën a doxal ci kanam kon maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay delloo nuyu bu baax a baax yaa ngi ah, bandi ah, man damaa yaru léegi. Eh, loo ma andi sama émission Sénégal yi fu ma tourné ñu Boy Niang. bu koy nag surtout position nag. waaw <laughs> tax nga nag damaa yar oo ma jëkkër damay génn si yéen yi tey moom damay pingé sama cër. de boo <laughs> a war a jàng. kon na ah nekk loo xamante ni si foog naa ne Sénégal yi ñëpp koy xaar bu ñu nee Saint-Valentin bu ñu ci invité ki nga xamante ni moom moo di Mbodia Mbaye kenn du ni déedéet hmm. ba tax na tey rek ma di la laaj naka la ñuy waaje Saint-Valentin ak nan lañ ko war a préparé Saint-Valentin taaw bu jigéen bi ci du fi jóg chaque jour d'accord gis nga sunu xool du xeer du ban maanaam xol lañu yor dañuy dund dañuy yëg Saint-Valentin à chaque fois ci couple mooy lu neexti mooy mbëggeel goo xam ne dañ koy suuxati muy gundaandaat yéen a xam ne ñuy suuxata mbëggeel nag xale yi bees barke Alaaji Fàllu Mbàkke mm-hmm. dangeen dundal mbëggeel mm-hmm. xam nga ñun Saint-Valentin daanaka intéressé wu ñu woon. yéen génération bu bees bi yéen a ko pëlal di ko def ba mu baax. moo tax tamit su ngeen koy su ngeen ci tollee. nekkul da ngeen ko war a dund à chaque ñu taamu ci benn bis bi nga xam ni. Mhm. ci lañ ko war a dëggal maanaam Saint-Valentin mooy dëggal mbëggeel tey. jagleel ko ci waaw maanaam da ngay da ngay dëggal mbëggeel ki di ko wane à chaque fois que nit tey laa gën a bëgg. Mhm. mais chaque jour Saint-Valentin la mais dëggal nag dafa am. taanu benn bis bi ne tey dañ koy feete mhm. ndax dafa rëy ci man ma ci bëggalante ki ma bëgg loolu mooy Saint-Valentin kon na léegi neex te xale yi jigéen toog nag. toog maanaam ah toog ci kër nan toog de. maanaam bañ a bañ a bañ a xale yu góor yi nañ may dee na xel dee <laughs> xale jigéen yi. Mm. nañ réglé. waaw ñoom nu ñuy dundee mbëggeel. bu ko dee toog à chaque fois dañuy surux. Mm-hmm. parce que wéet ak ki nga bëgg ci biir néeg <laughs> ah kan wéet ak ki nga bëgg ci biir néeg néeg bi tarkaal la ngeen def seen lu rafet loolu décorer seen décoration ba baax. Mm-hmm. def seen su ñuy wax Saint-Valentin. dañ mm-hmm. koy dund tamit lu ci bari ci couple yi. su suñu dee wéet à chaque fois ñoom ñi nga xam ni. Mm-hmm. sëyaguñu duñ jóg ci erreur. duñ jóg ci erreur te après da ngay pare réccu. d'accord waaye lu ah, da bu dee nag yaa sa jëkkër la dundal leen ko ba xar suuf si. na néeg bi dajjeeku nan daal bi wàcc. waaw. mbëggeel la ëpp na ko. <laughs> ay sentiment la ay jooy rek la. waaye nag fi la saytaane di accompagner mooy nga nekk ci ku nga xam ne sayoo leen wéet. teg burus bu sedd. Mhm. <laughs> <laughs> ah musique bu sedd bu neex. ah sa néeg am na mu mel say décoration sa waay yor tarkalla jël mel ni Omar mi def sikkimam bu bees bi xëcc ko peñe ko ba mu rafet tarkalla nga daal def def sa lu rafet yor sa benn fleur war a seet si Mbodia Mbaye ah. ci benn néeg mu daal lay xelal Mbodia Mbaye teg la ci axe waaw xam am na yoo xamante ni boo ko doxalee ki nga bëgg mm-hmm. après da ngay réccu seen volonté bi day jàll mm-hmm. nga toog di réccu kon man li ma leen di digal mooy ni ñu koy feetee mooy nan toog ci seen weti yaay yi nan toog ci seen weti yaay bañ a génn seen kër gis nga jigéen soo bëggee rëcc da gàtt tànk. mais su boobaa du ñu féete Saint-Valentin di Tambodi. ah déedéet nañ ko fee ay ah, ñoo xam ni ñu koy féete à distance sax neex na di. Ah, waaye à distance boobu. boo gisee day neex ba pare di nga rawale sa bopp. bu la neexee yow say vidéo yi neex di. Mm-hmm, mm-hmm. ah TikTok bi lépp a ngi fi di. di dagg seen vidéo ak seen affaire fleur yooyu di la ko yónnee ngay bekk mm-hmm. nañ ko distance sant rek waaye mbëggeelu jege yaantoo ci weetaay baaxul. baaxul waaw. surtout nag bu sa sëy amut seytaan da leen di dugg góor ak jigéen assuré la saa yu ñuy weetee bu leen yàlla dimbaliwu lool di nga fa def après looy rëcc te loo xam ne nag ñaar ko seq te lu yàqu kenn kala mooy tut ah. yow ko jigéen ki looy yàqu yaa ko yàqule eh góor kat mën ngaa am tëddee ko jox tëddee na koy tëddee faatu ah. pare tàkk sa da koy jóg taxaw hmm. ku koy xam waaye yow kenn donc bu la tëddee sa àdduna yàqu hmm. nga pett lu rëy ci benn suur dañ hmm. moytu bu baax a baax moo moom Saint-Valentin bi ñoom nañ ko dund à distance ñi sayagul nañuy fleurante nañuy envoyé seen lu ne te toog ci seen kër yi ñi nga xam ne nag ñoo couple nekk ak góor ñu baax ñi ci biir kër yi nañ décoré néegi taal lamp yi filaale sànneeku cuuraay yi neex tarkal la te gis maa yi rafet ci jox ni mm-hmm. waaye chaque jour la tey nag la dëggal bi yooru jëkkër yi waaw ah, toj ko kay ah, góor ñi ku toju seen yoor duñ toog de mm-hmm. gis ngeen gis ngeen euh, taabu jigéen gis nga Mbodia mii di wax nii mm-hmm. su ma neexee vulgaire ba tëdd ci suuf xam nga lu li may wax dama koo sentir si sama xol te samay wax nag dafa dëgg du ma wax mu lu ma gëm gis nga jeeg bu fi cagawul ci réew mi ñu toll jeeg bu fi cagawul ñi may sa jëkkër goo jeeg bu fi nekk di yaaram yaaram loo ko meleex meleexi mm. ak logg logg la ka lagg laggal mm. barke si Ahmadou Bamba sa jëkkër da lay perte góor ñi jeeg bu cagaa di tee ci kër ah caga mën la eh kan boo vulgaire doo doo caga parce que boo vulgaire doo wow bët mhm. xanaa xam bala ngaa joxe dëgg wow bët mhm. du la saf loo bëgg def def ko loolu mooy vulgaire mhm. moo kuru mbux waaye nag soo nee da ngay yaaram yaaram lu ak bu sib mboo xanaa xam ne ma jéggi bon waaw li may wax def doo nga baax bëgg ku bëgg lu baax bëgg ma góor ñi sax dañ laa apprécier looy di bégal ma fu ma romb ñun ma kañ ngay jëli waan mbooja eh, neex neex ci koy wax rek ngay bëgg xam nga góor ñi boo gisee ñu di may apprécier di ma topp mm. parce que li may wax xaaj bi dañ koo dundul woon xaaj bi yëpp dunduñu ko woon dañoo dem nag ba yeewu nag xalaat ni que man koo lii Mbodia Mbaye ko woon ñu bëgg a dem nag di ko dundiwaat moo yi ab jeeg day cagga la yem ci sa jëkkër <laughs> eh <laughs> def ko noonu mm-hmm. ndax dafa caga eh damaa di kilawaat aju tëdd sama kër courage bara maa ngi liggéey sama site pour ñu may laaj mm-hmm. tëdduma de làqatuuma nëbbatuuma damaa reculer toog ndax wax dafa miti mhm. te sama baat dafay commencé di diis su sonnee damay fatu ba mu bàyyi ma soog a jóg comprendre nga mais dawuma daayuma gis nga lii may wax maa moom ba yombal xiyaam hmm? xam nga nee nañ mhm. maa ngi gis ne saan benn femme bu ma taf dama yàq lu mel ne xamee mais dama dama ko xam yàgg ma ree hmm. parce que su ma fi jógee liñ may tagal hmm. fecckat bu fi dee fecc lan lay tagal ndax moom nga fi doon def waykat bu fi dee way lan lay tagal moom nga doon def man su ma deewoon lan lañ may tagalee lu samay vidéo vraiment rus ko ma ko tagal man xool su ma deewoon tey ñu tagal ma samay vidéo yàlla may man ndax dana ma li mhm. da nga doon defar néegi njaboot gu baax gi di ci juddu góor di bég jigéen di bég ku mu di bari tasoon boo jëmaay defar leen may dégg na sama situation ñu ma boo deewee da ngay xalaat eh dinañ ma may sama jàmm ah bis ma dee sama ngàll ngàll gi nañ ma ko tegal mu circulé loolu laa fi doon liggéey eh xam nga ne seen différence mm. li nga daan jëlee nit. maye ko te du gis jëkkër mu toog fa di boo ko tax xale yi tey ñoom dañuy dund mbëggeel man loolu rek ma neex na seen génération. Mhm. dañuy jël mbëggeel jox ko mbëggeelu démb moo gënoon dëggu ah, mais mbëggeelu tay moo gën a neex moo gën a neex waaw ndax ñun mbëggeelu démb tamit li taxoon mu dàq nag tamit mhm. da leen ëppoon sens ci benn côté mhm. parce que ñun muusuñu woon suñu bopp duñu la ko jox xalaatuñu ko xam nga yéen nag mbëggeel tey yi xale yu bees yi moom tant que jël jëluñu sa bopp nga leen di tëdd vingt quatre heures ci vingt quatre ah, pour ñoom bëggoo leen xam nga boobu baaxut ñun na soo ñu mësaan a bëgg mhm. dañuy toog ñu la bu ma laaj sama bopp de waaw da ngay téye sa bopp yow ñun loolu mooy suñu différence dañoo ragaloon góor duñ toog yow pour ñoon suñu mbëggeel boo ñu laajee suñu bopp bëggooñu ñu mhm. lool la doon dund soo soo toogee nit boobu sax góor ñi mewut jigéen parce que pour mu jot danaan la booy est-ce que ngoon dooma fekk fee bu ko defee ñu def nii xam nga yéen da ngeen di naxante ba di ko jox yomb nga la koy laaj naan la waaw est est-ce que est-ce que booy ngoon di ma fekk mën ko yii sama yaay damay rey ak sama mag bu góor bi comprendre te boobu mag bu góor dafa amoon cër ci rakam boobu mag bu góor da daan gidee rakam boo siqee taak mu ne la xee foo jëm nga gees mu ne la wàññeekul mag bu góor daan contrôler rakkam parce que boobu mag ju góor ji day génn xam li ci dëkk bi ko lay rakk ci du nangu ñu yàqu ko comprendre nga kon loolu dañu daan dimbali parce que sa yaay daaw ci dugg sa papa daaw ci dugg dala daan bàyyi ak sa mag mu teg la ci kot ceeg xale bari tey yu fi safee seen mag yi góor yu leen rëccal barke Sëriñ Bamba mm-hmm. yu fi bari seen mag yi góor yoo leen parce que dañuy génn dañ xool tey ji Omar mi ngi lay seet ci kër gi da toog Omar toog doo tëj buntu doo doo fay lamp mm. Omar da lay xool waaw kay nga génn dugg nga Omar ni la eh, mboojee foo jëm mm. nga ko maa ngi ñëw mu ne la wàññeekul mm-hmm. kon mag bu góor da daan sëfee rakkam ci kaw yaayam neutre ci léegi nag mag bu fi jóg di sëfee rakkam yaay ji ko génn ca yoon newu ci day dox addunaam fekk boobu rakk jaa ngi doxal ci kër gi mm-hmm. di seere lu mag gi seere wut mm-hmm. nga jël rakk ci teg ci kaw mag ji dootu ñun nag loolu moo sunu loolu moo ñu safee woon ba pare ñun loo mën di wax ak ñun suñu la daan raay ak fóonante nii hmm. suñ commencé hmm. <laughs> xam nga ñun langue feres mooy la. <laughs> mooy joxante laa meññ <laughs> yéen ngeen ko tuddee léegi. yéen ngeen ko tuddee yéen ngeen ko tuddee léegi. ñun nag langue feres lañ xamoon. Hmm. dem sax suñu waaye soo mbares ci ko bari nii rek ñu topp. dañuy naaw kay daw. wax dëgg yàlla. suñu génération ñun. moo tax ñëpp rëcc ku ci nekk sa xale bu ndaw la la jël barke sëñ Bamba parce que boobu soo raayee ba neera dépassé dañ naan ñokk sol suñuy daal nga naan booy bi seer la quoi nan seer te ñu naan sauvé léegi nag moom xale dañ la koy jox nii sur le plat moo leen yàq seen àdduna ñoom moo tax jigéen yomb moo tax jigéen yombu xale yu góor dem ba tegatuñ fenn jigéen mais jigéen jamono boobu dafa amoon valeur dana nga daan daan may jigéen sax doo xam nooy def ak moom war nga tiima sax nga nekkante sa gel sax di jéem a nappaatee nga kii sax gel ba araftu la tàccu la ñetti tàccu nga tëlee faar dara dootul jógati boobu góor ñi jigéen am woon fitti jigéen loolu la ñuy ëppee sens contrairement ak tey a bëgg suñu jëkkër wala sax ngay doog a bëgg que tamit ka góor ka muy jigéen ñëpp ku ci nekk dafa war a bëggal sa partenaire ah, waaw non non mi chaque jour la gis nga sëy mm-hmm. ku yaakaar ne mokkal nga ko ba téye ko réer nga taw bu jigéen. Ah sëy kenn du ko mokkal. Ah. man mii di wax sax. am na côté boo xam ne xëy na tële naa fa. sëy kenn du ko mokkal. dafa am loo xam ni danga nga koy dund ak sa jëkkër. góor soo bëggee am ci moom yenn bunt yi. Mm-hmm. na ko def xarit. ba pare nopp ko ba pare jige ko. Mm-hmm. bu yaakaar ne pànk mooy tax góor ragal la. Mm-hmm. naka dal tax góor ragal la. da koy fatt bu sonnee ci yow buddi sànni. mais soo ko dee naxanteeg moom bu ñëwee nga tal ko nekk ci moom def ko xarit lu mu def dala koy wax. non ñaata jigéen la ñaata góor la fi seen ay ay jigéen di topp fekk ñor seen jabar naan la xoola booy bi ni ma toppee man dag la nopp nga naan ko doxaan ko parce que comme maanaam waxtaan la communication boobu mm-hmm. lañ dem ba am ci seeni i jëkkër mm-hmm. kon defal sa jëkkër xarit mm-hmm. may ko jàmm set di ko xool ci mbëggeel lu mu am nga dund moom lu mu ñàkk nga muñul ko ko su amee mu neex su amul mu gën a neex. Hmm? waaw mu amul mu gën a neex gis nga jéeg dëgg. Hmm. sa jëkkër tey bu daan xëy di la jox tey 5000 francs dépasse xëy tey yoru ko jox la juróomi téeméer. Hmm. toggal ko añu 15000 francs waaw loolu day xëcc ci góor ci góor gu am jom danaan boo jëm bi li ma ko jox démb xaaral daal di koy dolliwaat des fois góor dina yor mais mi ngi testé jabaram xëy ni ko yoruma dara nga ko boo yor dara boo ñëwee doo lekk sombi nga fi bàyyi sombi laa lay taajal xanaa xamoon jéeg bi ma gën a naw dëgg man boo jë bi yokku dépasse ba mu neex sa jëkkër jox la mu neex mu ñàkkaa jox mu gën a am na góor ñoo xam ne fi ñu toll nii bu ñu yorut seen kër neex am na góor ñoo xam bu ñu joxewul dépense am na góor ñoo xam bu ñu banqué ci mbedd la ñuy wëndeelu ba xaaju guddi Saint Valentin bi tey jii la ñuy noppee bég ba déwénaat barke sëñ Bamba maanaam kon une fois par année moom moom la ñuy am barke na góor ñoo xam tey la ñuy noppee bégaat ba déwénaat benn reetaan bi ñu am tey mm. moom la ñuy téye ba déwén am na jigéen ñoo xam ne tey jii la ñuy ree at mépp dañ koy jooyaat ba Saint-Valentin daaw ah, musiba la su musiba la moo tax chaque jour Saint-Valentin la mais ku Saint-Valentin da nga war a béggal si jëkkër jigéen ñi il faut ñuy muñ jigéen ñi il faut jëlaat goo ñu di leen dara jaal di taroo seen jëkkër di leen jox gëdd bi tey dàkk digg lal yi di leen ko jox ba ñuy gàll suñu bañee nga force ko bam neex dàkk digg lal mooy la jox ko ko ci digg lal bi ah tëdd da ngaa xamul tëdd. tëdd kay xaw ko man. ah xamoo ko te dama ko laaj. ah man moo tax mooy dàq digg lal yi <laughs> ah. da ngay dàq digg lal bi. Ah. ràcc sa tànk xóotal sa ndigg di fayu rek muy dàq. barke Sëriñ Bamba. Hmm? eh jigéen bi la gën a caga moo la gën a mën a téye góor. wow bët. seros kon maanaam góor moom si caga rek ko mën a téye. waaw ah. ak set ak lekk ba suur. Hmm. dalal xelam mu sa yow nga nàmpatal ko sa bopp ba mu miin la. góor su la xasee ba mii day dem ba am kersa mm-hmm. bu la xasee ba dugal ci xolam bi ba xam ne yow sa lépp kii na ko day dem ba am kersa def da nga koy poñe te doo ko poñe ci xeex doo ko poñe ci xuloo mm-hmm. ci cër boo ko jox ak gëdd bu guddee nga daj néegi def loola saf soo xëy ni ko kilifa gu mag yëkkati ko ci kaw <laughs> xam nga bu ñu xoolee si bu ñu xoolee melokaan ci néegi duñ jox suñu jëkkëri cër ah. te xale a ah, lan moo tax lool ah ah jigéen ah jigéen ju jigéen taxe lu respecté ci jëkkër maanaam tax lool néeg dafa garaaw xataa bu jigéen maanaam néeg bi nu a mel. néeg a gën a ah. taal sa lamp ji génn di aju aju yow nga nga jàkkaaru moom nii la ko saf. Hmm? waaw yooyu nga mel na la saf ku ci nekk mel na la neex. na <laughs> ku nekk day sumee ko ba set ah, boo sumee ko ba set da ngay ah, nooy def. mbubb amu fa yoon. Hmm. dàll amu fa yoon. dara amu fa yoon dungu. Hmm? waaw. nekk sa jëkkër ci biir néeg bi taal sa lampe di ko gis mu lay gis ko ci nekk li gën a seer yow sa morom gis ko ko ci gàtt xel respecté sa jëkkër te teewul nag dañ tey nekk ak yow ba mu neex ñu gën laa ci kaw mel ni dara xewul <laughs> àdduna yàllaa ko moom fekk démb tarkall biriwu nañ ñu ne longoo nañ fu ne <laughs> moo tax na ñuy bëgg bi dafa gàtt dafa jeex ba pare ku ci am tomb ci mbëgg mm-hmm. nekk sa jëkkër te nopp ko mu nopp la béggalanteel ba mu neex bu la kenn découragé loo tàppal mboo jambaay topp ma <laughs> kan ku ma topp topp lu gaaw te neex te wóor man la eh waxu xolal waxu caga ak defu caga moo fi ne yëfu caga ku ko deful doo am doom ah xale duñu ay dof di ah, eh sunu kër yi dañoo dem tëdd dina la duñu may doom yi dañoo dem toog dina xoole dañoo tëdd ci kër góoñu di ne la dañoo sëy am doom eh, looloo tax ñu naan caga caga déedéet caga tur la mais ku deful yëfu caga doo am doom yóbbaaleel boobu ma saa yu ma pëllee wax toj toj laa ko waat ba fi coono muy lëmbee. kenn mënu la ma dara. barke Rasulaay. waaw waaw doxalal waaw. lan la war a mën a yokk ci suñu sëy ba suñu jëkkër du am ci lu ngeen war a mën a yokk seen sëy bari na. ba suñu jëkkër du am ci ñun sànq. nag di mën a togg tale ngeen nag. tale nañ tale ngeen togg nag di leen fexe di mën a togg. di bette seen jëkkër yi palaay baax jogoon na li ngoon yi toog. Hmm? waaw ak réeru guddi ndax réeru guddi dafa bokk ci liy kàttanal góor reer ba suur doo reer ba suur këll mais góor dafa baaxoo su reeree reeru kër gi ba pare boo demee ba war a tëdd jox ko oyof loo xam du diis waaw maanaam comme comme lan tey ji nga mel ni def sa caakiri bu neex daj sa meewu góor yaa bu neex sa jëkkër toog nga sol gis maa bu rafet teg ko ci dara bu weex tàll njëganaay taxaw lal lal bi bam ni muur nga def sa maquillage bu simple boo mel ni boo Mbaye da nga tas say njeej ku la moom boo solee déguisement bi nii jël sa jël sa fulaar bu sero takk say njeej daal di felanku laayu hmm? waaw góor guddi boo koy jox ñam da ngay felanku laayu lan ngay sol boo jox ni nga def sa tànk gis nga ko bii ci bii lang nii bu yéegoon def nii mooy felanku laayu imagine <laughs> boo solu woon tubéy la la lay jox ci kaw nii set laa la wax de bu toog mm-hmm. def sa maquillage bu simple mm-hmm. toog jàkkaarloog moom mu leer reeram bu oyof sol kala soom bu toog ak silet maam néeg dañ koy mën mën néeg mën kër mën mbedd mën mbokk du benn déedéet waaye jeeg bi la gën a mën néeg moo la dàq hmm? waaw boo jox jëkkër mu reer du suur hmm. yaa ngi dégg hmm. nga dama say say toor soog say mbese mbese teg léegi lu ci des ah, xam ngeen géwél jigéen lu ñu rawale góor yi ñu bari dañuy wayaani ba ñëw jaar ci dibitari bi lakkal la kilo dibi parce que Seex Amadu Bamba teg ci suñu kooku bu toog ñëw ni la reeral ñu sangu ñu ngi ñëw eh reeral ci ndawal gu tàng gi ba mu neex beneen bu gën a tàng te neexa ngi nii di la xaar noonu la ñuy seeyee <laughs> waaw waaw waaw euh, euh, ñi nga xamante ne dañuy sëy am benn doom rek bàyyeeku mooy ndokk jar na ndokk jar moo tax nag xanaa xamal lool nag moo andi doxaan gu mitti gi ci dëkk bi hmm. sa galaas gii hmm. ñoo andi doxaan gu mitti gi ci dëkk gi xale yi bees yi dañuy dem sa ak yow ama joo benn doom fàtte la nekk ci seen doom talatoo baay am na ci waay joo xam ne ne moom boo Mbaye ma ko xam ne sama jabar benn doom la am Mbodia Mbaye sama néeg boo fi duggee da nga naan kii la su ma dugg wàcce du ma am fu ma tëdd ndax debon gis man ku may noonoo danga maa xamul barke sa Amadou Bamba li may rek li ci dëkk bi bari na hmm, kaay yu bëri yaa ngi koy barke Seydina Mouhamed hmm. na ma sama jabar benn doom bi mu am nii hmm. sama jabar salte na bëri nay bagage su ma ñëwee du ma am fu ma tëdd taluma doom jala tal fàtte ko eh ku góor ko day tal boppam da lay baag sa doom lonku feneen du jokkoon maa jor jokkal leen <laughs> saa yoo baree baax na saa yoo ko dalee baax na hmm? lii mooy doxaan loo góor ñi gis nga góor ñi ci bari ñu ngi doxaan di waaye di ci mbedd yi seeni i jabar leen teewut hmm? ku ñu tee nga toog waaw tee dafa bëri façon tee ci biir hmm. des fois na nga bàyyi biir ba lal ba defe ne loolu rek la saako bu deful dara du taxaw de góor boo ko bëggee utiliser da nga jox reer bu toog waaw ndax sëy daa métti à vivre say say gën a métti fii moo tax bu la dimbaliwul sax tiim jigéen ju ne yàcc balaak lépp soo paree da ngay mel ni xar mënu rendi da ngay sonn moo tax sëy dafa métti moo tax góor bala nga jariñoo da jox mu lekk bu suur mu soog laa mën a jariñ mais maman Mbodia léegi dañu seetlu ne que xale a utiliser que moom moo fi génne waat ah ah. maa fi def vidéo fi def ñu ne bàyyi ngeen démb boobu mooy naan ñaq. naan ñaq waaw. naan ngay woddoo dafa am bu ñu nocc am bu gàtt am bu gudd mais sër yooyu li mu mën ci kaw la dafa bari hmm. maanaam mooy mooy tax nga saf jeeg ni ñu seet yëpp affaire tubaab la waaye sër bu weex oo hmm. bu weex hmm. tooj say ween. <laughs> xala am na ci boo xam ne sax xanaa xanaa am na ci boo xam ne sax kenn nocci ko boobu mën nga woo def sangukaay rek. sangukaay ma sangukaay ah, yow dem dëkk ci biir néeg ci hmm. biir salle de bain sangu ba génn fekk sa jëkkër tëdd ci lal bi nga woddoo sër boobu xam nga day marqué day tafu daf ay tupp tupp ndox mi ci tafu <laughs> day tooy daal waaw xanaa nga moo ne sanguwaalee fer sa provoqué la ah bon waaw dugg ci biir douze sa jëkkër tëdd ci néeg bi nga den bañ a tëj sa buntu salle de bain bi de bàyyi salle de bain bu ne ŋàpp nga tey fer naan ko rajax di ko raxasaale ay fer dañ koy raxas yëkkati ko ci biir mu aju fii nga raxas fi muy tëdd ba mu set nga soog ko wàcc moo tax jéeg bu ci jongee jël fer booy sangu ci du sumi teg bu yàggee du reefet day kole day am xet gu naqari fer dañ koy takk ci ndigg raxasaale ko waaw booy sangu téye ko raxas ko ba mu set nga yéegal fer yi ci kaw biir bi raxas ci naq bi muy tëdd ba mu rafet ba mu set nga wàcce waat xënjëng xënjëng googu day tax waa ji bala ngaa génn ci néeg bu fekk ma nga ca kaw ngay diw waale booy <laughs> fer góor gu mu yëkkatiwul doo góor ah barke Sëñ Bamba ah, góor gu ñu affaire annoncé ah. nga ni neem eh seetaatal sa bopp tamal faju ji waaw ndax yow boo génnee ci douze millions ba war doon naan ñàkk boobu mu tàpp sa kaw ndox mi tupp tupp yooyu dikk nga fekk ko fi mu tëdd jigéen day fomp sër boobu da nga koy fomp da xam nga boo ñëwee ba ci digg da nga dégg naan rajax rajax yaa ngi fomp dem fàtte ko yow yow fàtte ko ci rek toog di diwu nag raaj say tànk boo toogee diwu ba mu nga toll ni ko diwaale ma sama ginnaaw ah. gis nga foofu boo fa rëccee góor dajewoo góor <laughs> barki yàlla sër boobu day provoqué yow rumur rumur maa fer ci biir ne nga tëddaale ko ni neem moo tax boo sangoo ba ñëw war doo sa naan ñàkk dikk fompul diw loolu lépp ay xeetu provoqué la soo paree paccal sur ci loxoom ni ko diwal ma mu diwal la nga tourné waat di diw waddal sër ba te bu ko forde ah boo ko forde noo koy def ab jeeg buy diw du woddu woddu moo sa jëkkër ci biir néeg nii du melen du la saf boo fomp ba sër ba pare baal mu wadd et eh, boo ko foree dinaa la mere torop def naa ci vidéo Omar dina ko monté. da nga koy bàyyi noonu. jéeg buy sangoo bu jëkkëram di nekkee ci biir néeg. Ah. doom duggul kenn duggul boo sangoo ba ñëw bu laal dara. léegi dungu loo gis du ci dàq. Ah. waaw. donc boo ko ci laal bi muy gis nga ci góor day miin yaramu jabaram. man damaa bëgg góor goo xam bu gëmmoon sax boo ko ne sa sexe jabar nu mel mu bindal la hmm? waaw loolu laa bëgg mooy miin amul sax interdit. tool bi sa tool la bayee ko nu ne dañuy wax seen lamp parce naa ko fi. Ah, ah maa ci dëkk def dëkk bi yëngu ñu naan la Mbodja Mbaye wax la Mbodja Mbodja Mbaye li muy wax dara du ko dindi <laughs> dëgg gu wér peng laay des man dama du soo sama déguisement bu rafet di nëbb góor eh yaram lan nga ci nëbb sa jëkkër duggal salle d'accouchement hmm. lu tax góor dafa dugg bu doon sa jabar doo nga fa ne ñu bala nga dugg ay jigéen a fay ne ku ne naan dum ay jigéen ne dañuy jur kenn dalu fa kenn des fois góor a lay tiim réewle la des fois jigéen tiim la réewle la doo gis sër doo gis bu lépp naan dungu loo bëri bëri kese boo duggee salle accouchement fu teeku ñun ñu jur doom laa yow sa jaara goo ci xaar ba nga dugg sa salle accouchement lu tax ñu koy interdit naan la jigéen góor fi dugg bu dee sa jabar doog sax dañ lay bàyyi nga dugg mais yeneen jigéen ña fa nekk tax ñu ci interdit góor kon la nga mitit bala dal fële ba nga ne dungu ba neex boobu nga war a yëg ci néeg ba ne dungu <laughs> yëg-yëg la fii neex neex la fii mitit la te mitit baa la jàpp ba nga ne dung xamoo ko fa bëri kersa xamoo ko fa xees xamoo ko fa ñuul ràññee woo fa góor ràññee woo fa jigéen yow doom ci ci yow nañ la ko génne nga am jàmm ndax mitit bu tar kon bànnee mitit boobu nga yëg foofu bànneex boobu nga war a yëg fii ba ne dung sa yaram loo ci nëbb sa jëkkër sa yaram bii loo ci war a nekk loo war a mën a nëbb sa jëkkër kon nag jéeg bay nëbbatu bokkuma ci yow man boo dee bëree kersa di melex melex du ma la bëgg man soo yàccaaree doo ma neex soo cagawul bëgguma la man boo ja xanaa xamul sax xale jigéen ñi man damaa wax ak yow man damaa bëgg ko ñambax ñambax di vivre caga dama lay bëgg man sama groupe bee maa ngi koy daj ña fa bëri woon kese ñëpp a ko sama koñ bii ma lay wax xale jigéen fi nekk ñëpp a ngi ñambax ñambax àdduna yàllaa ko moom ki bëggul ba dee boo dee néew bu ñaaw ngay doon que béy ko neex neex bi nga fi baax jotoo ci dundu dara ku am jëkkër bégal bul téye dara sa jëkkër jàngal ko caga jàngal ko wëyu bu woyoo nga gën koo wëyu gën koo ñeme kawlal bi góor góor boo koy ragal xanaa xamoon sax da lay sonal mm-hmm. góor boo nekkee mu ci biir néeg mm-hmm. di ko attaqué di ko tëdd 24 heures sur 24 day daw da may jàmm mm-hmm. waaye bu la laalee ngay ñeek ñeeklu foo ko gis ma ngay puus parce que góor day toll foo xam ne day soxla jigéen moo tax yàlla di jox benn ñaar ñett ba ñeent bu ñu tollee ci jantal meen mën nañoo boole ñetti jigéen di leen tëdd ci benn jour te du leen wàññi dara waaw bu leen wàññi tus gis nga sëy bi ñu naan jigéen ñi da lay yàq da lay benn góor ak benn jigéen ci kër góor mënul ci yow dara ku góor mënul ci yow dara day raxasu rek. Ah. raxasu maanaam. saabu ordinaire ba mu baax. saal dànq yi bari di mélanger di naan say pëndaxu ndiir say ceeb sa naq di am ndox di tooy hmm? waaw. boo dee raxasu ba set fii ba ngay am 40 ans xale bu ndaw ngay doon am na xale yoo xam ne sëy ñu lu bari te boo leen xoolee boo jaaree ci ñoom dem autour à péage. ndax la mënuñoo raxasu. jigéen nga toppatoo sa bopp. jànk ak jeeg du benn. lan lay def si jigéen bi da lay delloo xale. bañ di utiliser produit yu bari. naturel de fi maam yi bàyyi woon moo fi ne ba léegi. Mm. al dànk ceeb saabu ordinaire moo tax jeeg bu ci nekk sa sa douche dafa war a am saabu ordinaire. boo xam boo toogee da ngay toog jël sa temps raxas sa bopp ba set wecc te doo droité ci biir bàyyil ci biir noonu yamal ci kaw soo paree mapp ba mu set mm-hmm. nga bàyyi foofu noonu ca biir boo àndeeg sa borom ka lam fay baax mm. moo lay aar. moo lay dimbali tam moo lay tooyal nga boole ca la ngay naan ak sa mbese mbese xanaa xam nga ràccu mba ràccu mbaxal sax dafa am noo koy lekke mbaxal sax boo koy lekk da ngay ràcc suuf toog bàyyi sa yaram yëpp mu salaat te nee naa leen jigéen buy toog toogee xott taat sexe am lay toogee toog jiita suuf waaw loolu ko mën toogee taamu <laughs> da ngaa bëgg ma woon la ko naa ko xam ah lii la waaw nii la jéeg di toogee gis nga boo dee toogee noonu à chaque fois kari da ngay am envie uh-huh. sa kanam day ndaay. góor gu la teg loxo yuuxu. Hmm? jigéen du toogee xootu taat sa sexe ngay toogee. ku am jëkkër ku am jëkkër waaw de ko jàng toogin la. ah man de war naa ko jàng man de xamuñu. waaw dee ko jàng nag. Ah. booy toog neen mbàpp ci suuf fële nga booy toog ci photo yi yëpp jiitala sa kanam. arrière sa ginnaaw di nga am taat di nga am suuf. Hmm. te noonu ko góor ñi ba noonu. Hmm. muy doon fataayu complet bu ne nongu ci kaw nongu koy amee. <laughs> aywa mënatuma damaa sonn tàmboo ja ki nga xamante <laughs> ki nga xamante ni si dafa dafa dafa nekk en état de grossesse maanaam mu ëmb euh, jëkkëram di ko maanaam su waree tëdd ak jëkkëram ñu bëri am na ñoo xamante ni si dañuy dañuy buñ tolloo foofu noonu duñ bëgg a seen jëkkër dara moment boobu noonu boo fi dee seexal sa jëkkër um, rapport lan lan lan lay def si yow. xanaa man xale jigéen ñi ba tey ko d'accouchement boo dugg xotti nañ leen. Ah. man damay jommi léegi salle d'accouchement yi ku dugg. du xotti lu ci bare baree bari la opéré sayu ñu ah, déedéet sayu ñu da ngay jël ëmb sa jëkkër mi ngi fi teel say ba wasin xanaa xamoon ñu dañ daan sëy pare matu léegi dem am doom gis nga sa li sa jëkkër ànd ak yow noonu ba yegg si boppam fii lay ne sa bopp doom parce que Serigne Bamba internet lay wax lu ma la wax bindal maanaam bi nga àndoo sa jëkkër ba pare noonu ndox mi mu daanoo moom dafay nekk ci bopp xale bi ñoom soo demee bay wërsëg dañuy xam ne yow léegi nga pare hmm? waaye sooy matu léegi da doom jigéen boo ëmbee hmm. te réew laa sëy am na ñoo xam dañuy ëmb dagg sëy ba hmm. bu ñu leen di visité dañ naan sa jëkkër nga ko ma fa boo tëddee boo amee doom yokku la ba nga sës wala ñu jël dugal opéré la déedéet sëy day dimbali jigéen ñu wérul te góor ñoo xam boo jëlee ëmb lay gën a soxla da ngay tàng ci biir waaw. Ah. Ah, yooyu yëpp am na si ko. waaw am na góor ñoo xam boo ëmbee dootuñu la sori. foofu la jigéen dàqee. d'accord ba pare bu fekkantee que ne taarkaal la man xam nga dafa toll fam doo mën a jaaxal. maa xam nga loolu léegi soo jaaxaanee sa doom day yéeg. te loolu bu yàggee mën na laa fat doo ko mën parce que ngay sonn parce que bu ëmb bee diis waaye boo diisee dëgg dëggal côté yaa ngi fi doon laaj diigal. ay position yu bari doon naa la ko laaj. yaa ngi ko fi doon laaj mais boobu nag moom mooy côté bi boo diisee dëgg côté ngay tëddee ku góor ki doxalee ginnaaw. gàll benn loxo bi ndànk lijjanti ko foofu. ah bon ah. moo tax jigéen di am doom 40 jours yi war a toog jëkkëram da ko ciy namm parce que te ëmb ba sëy ngaa sëy ba nga xam ne tarkaal sa jëkkëru sëy na jeeg yow sëy boo xam ne xam na ni jabaram ji am na changement parce que jigéen bu ëmb bu ëmb bokkuñu soo ëmbee da xaw a tëju boo demee bay diis ngay xusoogu ubbeeku tuuti mais ci biir ëmb bi ngay xaw a tëju parce que kanam dafay tàng ci biir kon maanaam li nga li nga yëg booy booy sëy si ëmb. jigéen wéeru te dàq. moo tax bu nangoo sëy noonu jëkkëram du ko sori. te ñàkk a sori googu da lay dimbali. su la war a naw agraaf benn. tuuti lan lay ñaaw wala mën nga saa sa banee jaar am na xale jigéen yu bari yoo xam ne kenn xottiw leen. Mm-hmm. dañoo accoucher normal parce que dañoo sëy. Mm-hmm. sëy boobu yow lay dimbali bu yaakaar sa jëkkër dafa bëgg jigéen te ñu bari loolu lañ ko jàppee. dafa bëgg jigéen day bëgg di sëy di sëy mais yow lay dimbali ci kaw ëmb bi day tax mu gën a yomb soo ca sayee nag baa am ca doom day gën a yomb soo paree beesaluwaat defarwaat dellu na nga meloon bu doon jigéen ju wasin mel na nga wasina woon góor gu takk jabar ba amee doom ba ko léegi médecin ba médecin yi avancé yii raxas la ba nga set jox la say garab bi baax ñu tëjaat la nga faju ba normal beesaat tàq di xaar sa 40 jours commencé def say tay ba sa tëgalu ak say tubay sa waay di xiiru ab jeeg day caga foofu rek mën nga faa séeréer yu foofu góor da mel ni musulaa xam baru loolu mooy ñuulal bu la amaat dañu ne démb ñuulal nga parce lu tax da lay nammaat xem même la ndax 40 jours yooyu namm na la ci yéen ñaar dong ci biir kër gi loo ci bëgg da nga ko ci am loo ci ñaan da lay may dama soxla a mel ba 40 jours yi mat sa xel mépp ci mbóojam xay lay nekkaat parce que day mel ne mosoo koo xam sëy dafa am système yoo xam boo fa jaaree sa waay koy téye mais ku ci ñëmul kaw doo tee si jëkkër kon daal kaw euh, internet yi tey nag Mbodia Mbaye laa lay ci li nga xamante ne moo di spécial Saint-Valentin mais maanaam spécial Saint-Valentin nag damay ñëw ci li nga xamante ne moom moo di euh, moom moo di yow parce que tey du ñu jàkkaarloo yow nag ci spécial Saint-Valentin te laaju sa diggante ki nga xamante ne moom moo di sa sa borom kër mu nekkul am solo nu ma la laaj sax naka ngay laajee naka ngay préparé Saint-Valentin bi mais dinañu ñëw ci biir naka nga xamante ne sa borom kër. <laughs> man sëñ ma sëñ xale yi taamu jigéen. man ki ñu ma may jour ma ko gisee jour ma jour bi may sëy si laa ko bët. Ah waaw kon ñu bari may sëy si te xaw ma xamuñu ma de ah. waaw. Ah, <laughs> ah am kilifa waaw man bi ñu may maye Touba Mbacké la ma fekk màggal ñu ma maye gën a dañ lay muur hmm. samay mag war ma maye ma jógee tubaa gi laa kan lañ ma may hmm. ñu ma sa doomu bàjjan ma jógee fa ñëw ñu muur ma ma sëy si ba tey ji ñëpp a ngi wër mbooja tas na mbooja amul jëkkër moo tax mu kii ah ko maam jëkkër sama jëkkër nag fii di la dégg <laughs> am naa jëkkër de mais doxaaneen taw ma ña ma doon la ngorool ba xale ngorool xale yooyu di réew too amul ku ma ci sëyal man kiñ ma may su ma ko xam ma maa ngi toog ba léegi 2000 hmm. laa sëy taawlu 2001 am doom ju am 22 ans hmm. daa liggéey rek fekkoo leen ko fi hmm. nice de sëy yi may waxtaan yëpp yàlla xëy na dund ma sama jëkkër dafa lewet sama xarit la loolu mu am na. Euh, def ba maanaam ba courant bi di di jàll sa diggante sa jëkkër vu que yéen génnoo leen comme ni ñu koy defee. ñun mhm. ci suñu temps bi xamante woo wala soo leen xamante ni miinante woo leen. miinante wu ñu de ah, naka nga def ba courant bi di jàll carrément. man nag sama sopp gi dafa yàgg ci man. man bi ma ñëwee kenn waruma yoon mi de te pourtant xale bu ndaw laa bi may seex wala laa. man 2000 maa ngi ci 16 ans. Hmm? doon jànku bu ndaw nii. d'accord xoolal. Mhm. ñëw nag gérer ko. ma jëkk di tërëf. ma jug nañu fit. yàlla dafa dogal ne dafa am doom boo xam ne yàlla moo ko def ci man. gis nga man ma nekkoon waxkatu góor ak jigéen. dinaa li ma doon. ah bon ba ma ma fooy jaar. Ah. ay caay caay nag ma nekkee. sob di dund sama fu. daan ko fekkee gars yi mu toog man ko juguñu tëdd. jàpp loxo bi jiital yóbbu. yaay naa ma foo ko jëlee man ko ba suba. boo bët googu noonu moo nekk ci man ba léegi. yaa ngi la foofu jëm ko damay tëddi. jugo ah ñu tëddi. man li ma def sama ceet gi moo ma dëkk fii ma toog dëbb naa ko ba mbind suul ak bëjëg ci xale César doon xale bu ndaw nag waaw. Hmm. fit boobu foo moo tax coole bu baree nii ay ree damay jàpp man sama jëkkër moo jël xale bu ndaw. <laughs> eh César <laughs> laay doxal maa ngi dund naa Saint-Valentin man chaque jour dama koy dund chaque jour dama koy dund. parce que maa ngi sama jàmm ki ma nekk fitnaa lu ma ooma benn problème. koy maa ngi koy préparé nag jënd naa sama bagage sew sewaan de des civil laa jëm bu ma demee ma debaa ba ñëw damay teel a wàcc rek ci kàttanu yàlla teel a yegg si dëbb ko ba mu mel ni suurak bëjëk rek àdduna yàlla ko moom te góor da nga koy yàq ba dootu mën a dund sans yow barke Serigne Bamba li ma wax ci internet bi ma ko liggéey sama kër déw ma ci Serigne ñaan lu ma ci fu ma toog lay toog yow daal lay topp eh, soo xasee mbooja mbaay day ree xam na ma ma xarit la. amagoo ku koy am. ku bëgg naa ko de gars yi ma ñemewul nee naa gars yi ma soxla man sama jëkkër xoolal bi gën a dee. kër gi ma jàkkaar lool fekk naa ko fi ci balcon man ko wàccal ma may la benn femme fii mu wiiri wàcc ma këpp ko parfum jiit leeg moom dem ba ca ba jël numéro ba jox ko. ne ko dee ko woo ngeen génn yéen ñaar nit. ngeen génn tàmboo ji loolu nuñ koy defee. parce que Serigne Touba fenu ma de man jàpp naa loxoom dem doxaan loo man. man parce hmm? que Serigne Bamba ah góor da ngay yëg ak moom foo xamante ne nekkatu leen ay jëkkër ak jabar. kon wóolu nga koy waxal yow li ma la wax internet laa toog man jàpp naa sama loxo jëkkër ba ci kër. Hmm. man ko toogal nii ñu ndaw si jox ko numéro am. jox ko sa numéro ñu déggante ñoom ñaar. doxal nañ ndaw saa ragal ni moom lu jiw maa ngi boo jëmbaay génn ci ba set ci wet ah man def ma dara nag. Ah. xanaa bëgg doo mën mu andi ma keneen ñu toog fii say sëy balaa neex nga wujja ah. ah <laughs> bu dee yow dong day mujj day mujj soof say feem day jeex di. da ngay feem ba sonn damaa bëgg nag koo xam ne mu ayee jam moom ñaari fan jox ma ñaari fan bu ñëwee ma wàcc Sénégal hmm? jéggee ma ñemewul di ay bëgg naa de. soo gisee ku bëgg rek ku ci bëgg a jàpp ak maa bëgg wujju na sama papa sama yaay ñetteel la woon sama papa ñett la bàyyi bi mu génn àdduna sama yaay ñetteel la woon man doo nga ci doon aaw mais man su ma soñoon damay fekk ci wala ñu fekk si ma la gën a neex ci sa borom lewet bëgg ma nag sama taaw ak moom mi ngi ko tuddee mhm. tur boobu laa ko ñaan mu may ma ah sa taaw moom sama baab la ko tuddee. bëgg ma bëgg na ma sama xarit la. moo tax dañuy wax naan ah, li muy wax ni ane jëkkëram xamuñu vidéo bu ma def Omar monté ko sama jëkkër a toog hmm? fii lay toog fii lay vidéo bi day toog may vidéo su ma paree mu ne ma baax na vidéo bu génn ci wetam la génne su bonoon du nangu mu jàll ndax des fois ma wax dara mu ma déedéet bu loolu bu ko def dindil hmm? ma dindi mooy monté caméra yi may vidéo fii lay toog wax lu ma set sa pare ni ko baax na baax na soo ko dugal Omar monté. complicité boobu waaw sama xarit ba pare daf ma taxawu ci lu bari. te dañuy communiquer. sama xaalis sama xaalis du ma ko yor sama loxo. sama compte YouTube. sama jëkkër ci turam la nekk moo koy retiré ji. su xaalis bi ne pàccax moom moo koy dem jëli ji parce que moom ma jot sama njàng sorewul lu bari du ma ci dugg sama xarit la moo tax bëgguma sama di dugg ci ay gaamam. ñu bari dañuy wax naan amul jëkkër ak tas naan man maay génn même lu coow bari bari man maay génn mais jàpp leen ni ma am naa jëkkër te sama xarit la doom bàjjan doom ni jaay dañuy dàq dañuy dóor dañuy fo tooñante li ma wax nii loolu lay dund man comme ay problème sëy daamaa sama jëkkër damaa mere nii de ñun bu nu meroo man guddi laay mer nelaw yeewu giif te mer mi ka du tee néeg bi neex de ah, <laughs> ah xaw ma xool léegi am na xam bu ñu poñe seen jëkkër non non non barke musu mu musuma te man 2000 laa sëy bële kii musuma raasi musuma tas musuma fay. macha allah. 22 ans de mariage bay dugg vingt sama taaw léegi mu am 23 ans. Mm-hmm. te fay musuma tas maa ngi fi toog. macha allah kon loolu lan moo ko waral moom dafa lewet baax téye ma mm-hmm. man tam ma doon jigéen ju neex a jigéen ju lekkul dara bàyyi fameem mm-hmm. jigéen joo xamante ni dafa toog yiir fameem du dugg lu nit xamul du ma du ma jigéen bu ne batu daal. damay communique man man damay communiquer damay waxtaan damay wax lii laa bëgg a def nan laa koy defee nga ne ma baax na wala defal nii aw ma ci sens intérêt moo tax man aw problème ko alors mais Tamba Mbodja ban seenu fiiraange nga mas a def ba pare di ko réccu non ma su nekkal damaa nopp fiiroo Tamba la <laughs> ah, nga am jëkkër mu leer na ne moom daa jébbalu loo koy fiire kan moo jébbalu sa moom daa jébbalu de moom pour moom nee na benn jigéen a àdduna muy Mbodja non man fiiruma aw ma problème yooyu de sama jëkkër bala moo na kontaan dëgg sax mu jug dugg kër gii ma leer mu day doxaat hmm? déedéet xanaa xamama sama nekkoon ne jëkkër ji doxaan sax yow hmm. man doo nekk sama problème fajol dëkk bi man kër gi lay gérer hmm? loo ñëw ma def ba mu baax waaye di la topp ci mbedd yeeg a tàccoo ko ko ko liiri message man dox ma ci yooyu man damaa nopp sama dund maanaam man yor ma jafewul waaw dama dama lijjanti kenn man sama bopp laay lijjanti lu ma bégal laay dox sama mbégteem bopp xool sama xol li mu àttal ma di ko yoon waaye bëgg laa lijjanti lijjanti sama bopp man doo ma jot bopp waaw. léegi ñi nga xamante dañuy vérifier seen téléphone jëkkër yi di gis ay leen neex ba ñuy génnee maanaam ba ñuy indi créer ay problème yu mel noonu. man la góor ku ko lijjanti lëj. ah bon ñoo gën a dëng garabu yoobu damm juróom-ñaar yoon gis nga joxe ji ñuy wax nii. Hmm? dina téye góor mais ci kaw lu mu koy téye. Hmm? day dem ba ruus nga dégg ko ci leneen. Hmm? ndax ni nga sonne ci moom. mais téewul góor góor bu dëngee dëng na am na ñoo xam ne sëyuñu li ñu war a sëy di seen jëkkër seen wet toog am ñoo xam ñoo gën a jonge Ismaïla Yaasin mais mënuñoo téye seen jëkkër seen jëkkër nag ci mbedd yi tool talaani yàllaa leen jox ku nekk ak li la yàlla góor bi la yàlla boole dafa am góor yoo xam ni mu xamee seen jabar toog nañ ci wetam soxlawuñu keneen am góor yoo xam ne nag bu nu amee bu nu takkee jabar sa lañ gën a tekkeeku ca cër ga la ñu commencé waaw mi ngi noonu moo tax chaque jour boo bëggee noppaleeku li la war ci moom defal bul topp bul lire message bul xool bul dañ kumpa gérer sa bopp sa côté lay neex nay nooy fexeel ba moom bu doon toj dëkk bi sa jox na la respect jox na la cër am na ci yow kersa boo xam rus na nga dégg ko ci dara loolu mooy dem ba tax mu toog loolu noonu lay dund ak yow ba mujj gi mu far toog dina xam ne mboo jëmi jox na ma cër nangu naa sonn ci man lu baax la ne man la ko yéene yaa ngi dégg kon nag naa dem na wax dëgg yàlla bu suti naa mboo ji dégg ma ci dara loolu mooy wàññi góor ba mu ñëw toog waaye boo jongee tamit te mënoo koo téye nga topp ci dëkk bi tàlli tàlli da nga koy gën a poussé ci li muy def da koy koy xamante doxaane ka ba ñëw kaay raxasal tànk ya def ko xarit waxtaan ak moom ba mu daal nga jox ko mu lekk ba suur bu guddee nga jox ko fataay compagnie gi mu dóor ba toog maanaam xam nga mel ni ku xamul li xew ah, ñaari yoon la koy def ñett day mujj toog dafa am foo koy jaar maanaam day rus daal waaw day mujj rus day gën a xam ni kii xam na ci li ma nekk mm-hmm. damaa baax bërgal ba kon nag bu ma gën a gore bu dee góor gu am jom te xam li mu bëgg. mais temps boo euh, nga xamante ni yaa ngi koy seeg sa borom kër ban anecdote ngeen loo xamante ni lu xaw a la wala loo xamante ni doo ko man <laughs> man lan laa mos a dund ak moom. lu xorom lu neex xanaa benn jour ma dem xew. <laughs> daa dem Dakar ma dem xew. Oh. da ngay benn xar bu ma kaay gunge moom tàggoo ma. Mhm. ma daal di sol yére rek topp ca. dem ca xew ba ñaareel demee ca xew ba nag bay ñëw du dugg ci benn oto ndek oto bi moom mi ci biir. léegi <laughs> <laughs> nekkee ci biir oto bi na eh? xam nga sama taal taal ci yàgg naa ci ma ne fa nag ah ak di taali taali mu jekki jékki ne ma eh mu ko kii kan la <laughs> mu ne ma kii kan la man koy yow la kan. yow mu ne waajum den nag di wax ci oto bi sama jabar la. Ah? wallaay asim man ko yow foo nekkoon mu ne ma yow koy laa koy <laughs> yow ma bàyyi ci kër ga ah. ba ca jooju oto yi ngay til til laamuñu réew yi ma ne borom xëy bi doo dem Bamano nan yéen <laughs> nañ ànd dem kër ga <laughs> mu wàcc waaxu ñëw toog ma jiit nag borom xew borom ñëw nag naa ko xam nga rek ñun damaa jug rek ni ko ni ma gungeeg loolu mu ne ko waaye wala am benn problème mais ñàkk tàggoo gi ba pare di ma laaj man laa demoon man kër ga laa ko bàyyi donc bi mu doxee jàmm ne bu doxu woon jàmm day feeñ kon nag mi noonu loolu rek laa ci mës a dund beneen bi ma mës sa defal ne lu ma gën a neex mooy maamee moom sama taaw mu ne may naa la tur bi tuddee ko doon lu rëy. waaw mu doon lu neex lool. alors ban moment la lay xool rek ni la je wala genre yi wax lu neex. su ma préparé ba war a tëdd nag. <laughs> <laughs> <laughs> ah yii ma fi wax ne yëpp ay sangu ñëw di fomp ko di wu noonu. Hmm. samay róor la de. koy defal koy waxal. ah da ngay laaj tàmbooji mii yooyu yëpp dama ciy dégg sa tam togg taaj mu ne ma neex na bari na moo tax ma ko tàmm ba kër gu ma lekk sax soo ma ko waxul damay mer waaw li nga togg neex na wala li nga sol rafet na selmitiir sama jëkkër koy tëj pétéo moo mooy diw sama digg ginnaaw ah bon ah moo lay tëjal fermeture ak yëpp yooyu yëpp ci mbégte mi la bàyyiwu di ñun du yaay mag di ay jéeg ndaw lañ ah ay jéeg lañ ñoo toll ci digg jéeg nii ah. waaw xam nga déjà des fois des fois ñu ne wa Tambodja mais mag moo toll ni di wax lii wala mais Tambodja du mag ah, mhm, sama solin moo ma jox daraja rek mhm. mais xoolal ba tey tey laa gën a tànk sama digg njéeg laa toll fi jéeg gi di njambax njambaxee ko vivre ah. foofu laa toll du ma ne kenn banaa la ak yàlla koy waxal <laughs> ah tal sama bopp di defar sama bopp doon sama digg jéeg doon jéeg bu mag bonuma li may wax su ma ci yële boo pare naa ci. su ma toogee ni waxtaan nii pare naa ci maa ngi bëgg dund leneen di gérer sama kër nga topp ci dëkk bi rek di yekk mbuuj maay lu mel ne xamee. leen. du ma leen baal de. su leen ma leen baal dañ koy defaat. ah kon ngay ñaf bàyyil may ñaf ko mu ne. <laughs> suñu ma du woon ko wax ma génn parce que tarkaale ñi may wax ñëpp kenn xamuluma ci tous. Ah dañ maa gisee internet bi nii rek. ma pële di wax mais man ñi ma xam dëgg koñ bi ma dëgg mag yabul góor yabul jigéen yabul cër rek laa fi am rusuma daagu fenn te fii nii laa ñàkkee fii la ma yàlla terale ci même koñ bi waaw omo fenn sans seen tëddi ma lu ñaaw waxuma lu ñaaw sama liggéey laay doxal li ma yore sama kër kenn xam ko damay liggéey gérer sama kër yi uuf sama njaboot dañ ma bàyyi ma firi bu mm-hmm. ma kenn dënk ku man waxal leneen mm-hmm. boo ji lii la ko yàlla jox góor ak jigéen ci lay ne waxuma leneen alors mais Tambodja bu problème amee yéen ñaar kan mooy njëkk def premier pas pour juboo man ah waaw def dem jënd lu rafet. maa xamul sama jëkkër xamul yére lu muy jaar. ah yaa ko jëndee loolu neex na. xamul xaru tabaski lu koy jëndee. ah bon. yor. Hmm? yow at mu jot ma jox xar na ko tabaskeel ak sëñ Bamba. macha eh. doom ju ci màgg. di gërëm mbaa nga xarab. Ah, waaye man fii ma toog. suma samay doom teg ma bët. ku naan bëggumaa gis yaay ju mel nii danga maa xamut. Mm-hmm. man ku ne bëgg ma jur la. samay doom bu ñu delluwaatul yombal xëyaam dellusiwaat man la ñuy taal. macha allah di fi ñu fekk seen yaay. ak ni mu taawoo seen baay ci kër gi. ñu ñu ci teg seen bët mm-hmm, mm-hmm. dafa am dundut boo xamante ni maa ngi koy dund. Mm-hmm. man sama jëkkër damaa yar sama gétt boo xam sax année ma jox ko xar tabaski mu raay. xamul yére lu muy jaar tabaski ma xotti du ma ñaw. moom laay xottil samay doom. boole ci lala ko nag sa rura bala di ko tagg ba jàkka ja. donc imaam ba da nga jox cër rek. Ah. waaye waru laa mën a jiite. ah bon <laughs> <laughs> croissant def ci bokk ak jonge waaw léegi nag man jonge waaw kay sama jëkkër boo laajee famem xamuluñ ko tus xamuluñ ko tus xamut lu may dundak ak moom fii xamuñu am na xamuñu amut ñu ko gis ak mbooja daal mu toog di dund parce que ay kilifa fi denc nga sëy bu amee kilifa danga am wéeruwaay ku ko wéeruwaay rek waay ngay neex a ba max moo tax kilifa dafa am solo ci sëy te maa ngi sant yàlla bu baax fii ma toog nii wax dëgg yàlla problème mu sëy yii dama koy dégg rek. macha allah amu ci problème. alors na mais suñu dernière question rek comme da ngaa a dem 2STV. non may tuuti ma tagg ko. ah waaw tagg ko. da ko faale maa wa joor. Kumba yaay jaloor. dogo mi ci mbeer goor. <laughs> xoolal ko wala wala. ah moom mi ngi koy jëlee ah. mi si Ndiaye ma jéem. Mhm. ki mooy góoru Awa Thiam. ne ngeen sim Thiam. Mhm. Fatma Thiam. Mhm. ah. ñu de jar moo rek. Amadou Thiam ak sëñ Fallou Thiam. macha allah Baye Mouhamed Thiam. aywa jëkkër dalay boot. nga ni ndongo sa dara bu lang caamaas damaa boot ma ni ndongo sama dara langul parce que sëñ Bamba bëgg ma taaw ma su ma bëggee mu bëgg su ma ree mu rees problème bu ma fi am saa yi ma jooyee maa moom ma koy bokk ak sëñ Bamba ndax li ñu koy wax naqari na ko te mënta wax te mhm. damaa yàlla maa doy jëkkër ju bëri kees nag nga sama fireeku gii di fétti fétti ni béjjën sama jëkkër du sikki xool nit lu ne ci moom maa ko ci def hmm? waaw. d'accord jàkkaarloo caméra bi wax ko nag je t'aime bu doy waar. <laughs> Eh, Thiamas bëgg naa la. Ah, sagal nga ma. Mm-hmm. yërëm nga ma. Mm-hmm. suturaal nga ma. Mm-hmm. te bëgg nga ma. macha allah yàlla ñu la far cat. ci bàyyi Sëñ alors ban conseil ngay jox ñi nga a dugg ci sëy te xamagul affaire rek ñu tëj émission am na ñu bari ñu ma ci ma daa métteeg uh-huh. tata Mbodj man xaw fu may jaar sama jëkkër mënumaa communiquer ak moom ah. sama waaw mënumaa waxtaan ak moom ah. xaw ma lan la man ba ma tëddee ba tey day metti eh uh-huh. tëdd kuy kuy bañ tëdd mu metti uh-huh. dee ko ci tegle chaque jour tegle boo xasee seet du tabal ah dégg ma seet du tabal te day ah. lëlu waaw sama kër barki démb la fi seet wàcc ci démb laa ko laa laabaat bu ngeen fi ñëwoon du ngeen dégg dara sama rakk bu góor ko fi wàcc démb laa ne fi samay bool tëgg def lu ma saf waaw fi mu toll ba ma xëy nee naa ko aja aja yaa nga ca ku góor ko ni ma waa ko dee ca nekk rek bu mu déggee ko ab seet day lalu tëddante seet bu bees boo bëggee gaaw a yëg bànneex mhm. di am plaisir mhm. gaaw a roobe dañuy sëy mais xale yi bari dañuy sëy tëdd daw mhm. di tëbal di tëb moo tax doo gaaw maîtriser wu beneen bi ci des communication da nga koy jàng sa jëkkër sa dépend ci regard bi muy andi soo ko xoolee xam te regardam bi amul sens waxtaan bu ko dara wax ju bari ah da ngay récréer jox ko mu lekk jox ko mu naan bàyyi ko mu sangu bu dalee nga laaj ko tey lan la lan moo la ah damaa sonn na des fois góor day sonn ñëw doo ma fi wax mm-hmm. damaa sonn wala nangam nga waxtaan ceeg moom communiqué ko génne ko des fois sax benn dund boo xam dundoo ngeen ko seen ngoro. ba nga ma fi defee lii ak lii ngeen tooñante reetaan mu soulagé wu. daal di soulagé nga ko da ngaa banque loolu kese la. non àdduna amul solo garaawul. Mhm. man am na lu ma fi dencoon sax bu subaa nga jël ko. bokk na ci dalal góor. am na góor ñoo xam bëgguñu ku leen yóbbaale. Mhm. mais du chaque jour muy neex. kon tey bu stressé. ba xam tey fii neexut bu ñëwee wàcce ko mu neex. Mhm. kon nañu jàmmal góor ñi. Saint-Valentin bu neex. mooy jàmmal góor ñi. góor ñi yërëm jigéen ñi. surtout miinal leen seen bopp. te jàmmal leen jigéen ku ko suturaal yàlla suturaal la. waaye jigéen ko ko toroxal doo jóg ci gàcce. te doo am dara ah. bilaay dara maa xam loolu. góor gi ëpp ëpp yërmande jigéen. Mm-hmm. lu mu am bokk ak jabaram. di nemmeeku jabaram jël jabaram di ko tiitaroo. pour mm-hmm. bu mu fëgg yàlla da koy tijji. macha te bu yoree téeméer sax day dagal. Mm-hmm. day law ba jaaxal ko. waaye góor gu ci yor dépense doo ko jox sa jabar di nga mbëkk bunti ba sonn yàlla du la jox googu gu ciy solu jantal men ba yàqu bàyyi sa jabar lu mu sol ci weeram sa du ko am da ngay sonn tant que xoolu jigéen a ngi tàng ci yow bu yóbbu nga tëdd doo bég mukk waaye ki nàmpatal jigéen ci kawam bëggal ko boppam yërëm ko lu mu laal day yomb kon nañu naxtaan jigéen ñi Saint-Valentin chaque jour la mais nekkul tey rek la ñu war a bég li ci des yëpp dañ koy souffrir ngeen di am temps di bëggante ba mu neex am temps di téye sëy yi ba mu neex waaye jël lépp ray ko ci mbëggeel ki ci ngoro gi sëy bi dikk lépp doon ay xal xale jigéen ñi bari leen di tax ci sëy bi parce que Omo da lay doxaan di la bégal nga miinanteeg moom mu ne def la xarit miinanteeg moom lépp ngeen koy partagé mu dem ba tàkk la nag jël la lem paquet ne nga mel ni tekkeetoo dara ci kër gi te dagg xolub jigéen day dem ba mm-hmm. na nooy téye ba da suur waaw te bàyyi doxaan yi ñàkk fay dañu waye waye ci koñ yi fi mm-hmm. ngay takk sa di ko fa sëyal dee ko fa cëral mm-hmm. boo mën ta bañ a doxaan demal fu la kenn xamewul di da am sutura waaye ñu denc ci sa jabar waaye di fa tekkiwu fa dara dañ koy moytu kon nañu suturaat jigéen di yërëm jigéen ñi di teral jigéen ñi di leen tiitaroo te jigéen ñi gën a góorgóorlu ci sëy te bëgg seen i jëkkër ñoom it di leen tiitaroo ndax yàlla dani jigéen du olof dani jëkkër du morom sang la kon sang boobu bu ci jëkkër tuuti ba nga xeeb ko bu mu nekk xale bu ndaw ba nga xeeb ko à chaque fois góor mooy yilif jigéen même sa mag bu jigéen sa rakk bu góor sax da lay yilif tey kii noo wàcce jabar tey sama rek bëggoon a topp sax ci man ak ku bëgg fuuf waaye tey ji moo ma yëlif su ma jàppee su ma nee bàyyil daf may bàyyi comprendre nga kon góor mooy yëlif jigéen à chaque fois kilifa googu ñoom la ko yàlla jox kon del ndaw loo sa jëkkër di ko yéegal ca kaw lu mu am mu doy la lu mu ñàkk nga toog muñ ko su amee mu neex su ñàkkee mu gën a neex toog sàmm sa njaboot riigu ak jeeg day toog waaw boo toogee dëjëti la du yomb mm-hmm. waaye boo sëy see cofee xottutaat bu ñu dëkk di la faas kon da ngay toog balaa kenn di ñëw loo loo daan def loo musul def dee ko def ba nga dikkee la nga commencé def ci lu baax dee ko yokk waaye na xaar ba ñu buxeet jeeg tagal la mm. ngay soog wuti loo def amul sens sa jëkk naa musumaa gis waaw wala musumaa xam gisumaa musumaa gis sër musumaa tëdd ci daraa yu weex retour yooyu mi ngi ñëw daraa yu weex xaw ma ko mm-hmm. xaw ma sëri weex xaw ma ay niwi set ay sëri legoo sa ki vax mm. am na góor ñoo xam ne ñaari jabar la ñor bu ñu fa ayee ci mbooja mbaay duñu jëg dara benn sëy boobu ñu sëy ak moom mën nañu koo fay ak moom 24 heures xanaa xamul des fois góor dina yéex a yéeg boppam ci jabaram. Ah. fekk ñàkk ko fa ba. ah bon waaw du kàttan de. Mhm. ñàkk plaisir la ñàkk yëg-yëg. Mhm. ndax na nga tëddeeg moom ci seru vax ba. jommaloo seru Lagos ba xet gu naqari ka mooy téye ko góor ki du daanu. Ah. day mujj sax rocc ko tëdd. Mhm. waaye góor dëgg mu liggéey ba wàcc ñëw fekk mbooja mbaay ci biir néegam tel rido bi xool ko. ne ca kaw. nga jug akolaat ko mu tel la ah. ngeen sëy lu neex. yëg-yëg la. Ah, ak na nga fekkee mbooja mbaay. kon nañu defarwaat te bàyyi di sol di dem xew. te bàyyi kër yi tàkkusaanu jeeg dafa am moom la ñu waa ndar gañee ndar géej loola fa ne tàkkusaanu ndar hmm. ku ne dégg na ko kon jéggi nañu suppar ñu ko ci jéeg ci ngoon gi di teeru borom kër yi waaye sañca boo xam bala ko jëkkër a gis nga dem xew ba boo demee xew bu la sa doom xoolee sax day yuuxu da lay ragal ndax xamul maquillage boobu ci yow c'est pas normal ñu dañuy defarwaat mm-hmm. Saint-Valentin chaque jour dara seeratul wooyu rafet yaa ngi fi tubay rafet yaa ngi fi vax léegi la gën a yomb ñun legoo sax euh, euh, xartum bu dëgër boobu lañ tombeloon <laughs> waaw daan nañ ci jël été bii daan ko sol léegi nag valet mm-hmm. mooy vax mm-hmm. lépp a yomb tarkal yàlla ñu yàlla damay lu ñu ko jënde loo ci dagg lu mu oyof toyof nga filaale kon nag nañ koy def tey def mël fa may ruusi nooy ñëpp te baax tey felanku laayu des fois nga sàgganu ah, dafa baax ci góor te laa rek ni mu xoy mat noonu <laughs> émission bi jeex na damaa sonn mënatuma tàggaloo mbokk internet caa caa affaire internet lii laa leen indiloon tey spécial Saint-Valentin ak suñu maman Mbodia nee naa leen moom saa su nekk rek waxtaanam day neex te day am solo macha allah ku ko déglu rek di nga ci am njariñ surtout ñi nga xamante ne dañoo nekk ci couple yi di sëy te bëgg a bëggal seen borom kër yi dama naa leen tout temps rek nañuy escorté yow di la seetaan te tamit di la topp di bàyyi xel bu baax a baax li ngay wax mbokk internet yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ci topp bi di gërëm ñi ma àndaloon muy Omar ak nga xamante ni moom moo di Ibrahima Faara Sow Serigne Sall moo leen nekkoon ci micro bi. di ko yeneen émission <laughs> merci beaucoup